2006 laa njëkk jóge fii dem Allemagne keroog bi nga xamee ne si àgg naa Francfort ñu jël ma ñu yóbbu ma kër Serigne Touba ga nga xam ne si moom moo fa nekk euh, ba ma fa nekkee di fa waxtaan ci Serigne Touba dafa am ñu fa daanu bi nu daanoo jël yu yéeme ba mujj yàgg danoo woote ñi nga xam ne si ñoom ñooy policiers ñu ñëw wër kër gi ñett ñoo yéeg ñaar ñu góor ak kenn ko jigéen ñu ñett ñetti escalier yi fekk na ci salle bi nu nekk di waxtaan. man fekk na boobu ñëpp daanu naan am koo xam ne mi ngi jàng moyen bu naafi foto sëñ Tuubaa bu mag mi ngi suñu ginnaaw muy xool ba mu jàgg mu ni lan la kenn ki làkk ko ci almaan ni ko dañuy dundal suñu religion mu ne ko yëngu-yëngu bi mag mu ne ko lii lay demee waaye lii du dara jàmm la du xeex du dara waaw mu xool xool sëñ Tuubaa mu ne ko kii li muy wax lan la mu ne ko kii moo ko bind mu ne ko ana kii mu ne ko kii nelaw na depuis 1927 mu ne ko déedéet ñun bi ñuy yéeg moom lañ tasanteel muy wàcc ci yéen loolu lool tey sëriñ Tuubaa tey